Grand Théâtre National du njaay Coumba Rose fees dell ba foo sànni mbàtt mu tàkk ndaw ñi bàyyeekoo ci gox yu fasantikoo ci réew mi lii ngir ñëw wuyu wooteep JPS di jeunesse patriotique sénégalaise di ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ci parti bi di Pastef les patriotes moom njiitu pastif les patriotes gannaaw ba ñu ko dalalee ñoom ndaw ñooñu lii mu jàkkaarloog ñoom ñoo rek woo leen ci ñu fësal lii di seen citoyenneté. xam ngeen fan laa leen soxlay mooy une formidable mobilisation citoyenne ba doole googu ñu amoon ba mun a jàkkaarloog état parce que toon nañu ba jàkkaarloog état parce que li la doon bañ projet bi egsi fii cette formidable énergie qui a porté le projet qui a protégé les porteurs du projet il faut désormais qu'on la transforme en une énergie de construction de notre développement c'est ça que nous attendons de vous Les lignes ñuy xaar ci yéen ci cette formidable force qui est en vous vous la jeunesse du Sénégal toute l'Afrique vous envie ay héros ngeen yéen jeunesse du Sénégal le monde entier vous envie citoyenneté boobu le nag da ko tënk sax ci lii di projet bi lii ndax ba ñuy taxawal parti bi dañ ni le don de soi pour la patrie mu wo ndaw ñoñu li ngir ñu gëna fessel seen citoyenneté na nak ci li nga xamanteni dor door ci ayu bëss bi bobu li mu jëm ci walum set ak setal manam gëna a yeesal xarkanam ak sunu yoon wi rek sunu dëkk bi li ci nonu le sax mu wawaat ndaw ñoñu le ngir ñu delluwaat ci tool yi li te ki di njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina leen ca jitu mom mom limu andak mom ñu ci vacances patriotiques sànq bi may ñëw dama waxtaan ak président Diomaye mu ne ma fàttalil ma gars yi projet citoyen bi def nañu une première édition nettoyé ñëpp jël nañu macha allah waaye dañ naan Sénégal départ la am amul arrivé weer wi di ñëw bu doon fukk a génnoon bii dañoo bëgg junni gis ngeen vacances yi man ak yéen ak président Diomaye ak tous les ministres dinañu bay dañu bàyyi de dinañu reboiser dinañu reboiser dinañu dem defar ay école tabax ci ay salle de classe tabax ci ay toilettes dinañu def ay action citoyenne bu mucc ay fii ci vacances yi ñu jëm loolu mooy wane ndax liñ doon wax ñun le don de sang de soi pour la patrie est que dëgg la si ñu am déet ca ba muy door waxtaan wi le nag ak ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti bii di Pastef les patriot premier ministre Ousmane Sonko feddale ko la rek réewum Sénégal ci Palestine ci noonu la sax muy woo umma islamique bi lay ñu taxaw temm ngir artu Israël mu dakkal dal gi muy dal ci kaw Palestine